salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki internet yi <clears throat> ak ñu ñu topp ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara comme niñ leen koy defal saa yu nekk rek di leen indil chise ci ngént wala di leen may ay tegtal yu wóoru wóor yoo xam ne dina leen jariñ ah, tey nag dañoo fas yéene indil leen benn mawdu ci gént xam ne moom it bari na nit ñi liñ koy sàkk lool muy sangu sangu sangoo ndoxum kese wala sangook saabu wala sangu ci géej wala sangu ci ndoxum taw wala sax sangoo saafara li ci bari misaal yoo xam ne suñ borom bu koy wan ci ñaare li ngay dunde wala li ngay jëfandikoo wala la koy wan bu ko defee nag nga war koo taawil ngir xam ko ku gént di sangu moo xam ci absence lay sango bu fekkee ku feebar la ak saafara la maanaam day jóg ci tawat ji bu fekkee ku nekk ku nekk ci jafe-jafe la ak jaaxle guy dañ la ku gént nag di sango ak saabu loolu wërsëg la maanaam euh, xaalis xaalis la mooy sango ak saabu ku gént di sangu ci géej loolu wërsëg yaatu la woo xam ne ci kilifa lay jóge mooy sangu ci géej wala sangu ci dex loolu wërsëg guy bàyyi ko ci kilifala ak jaxle guy dañ ah, bokkul nag ak sangoo ndox moo xam ne ndox mu nëx la ndox mu nëx yaakaar naa ñu bari xam nañ ko loolu ak jaaxle la sangoo ndox mu nëx loolu ak jaxle la gént di sangoo saafara moom it saafara tawat la aaja ju faju la maanaam nga gént ñu jox la saafara nga koy sangoo loolu aajo ju faju la bari na nag saafara ñaare uh, boo ko sangoo bu fekkee saafara bu wér la ñaare boo tëddee guddi daan la ci wan dara bu fekkee loo xam ne luñ la def la ñaare daan la ko wan ci ak yu baree bari dafa am nettali boo xam ne ñaar dama koy faral di nettali ci komba bi amoon diggante Balla Gaye ak Modou Lo yaakaar naa seen deuxième combat la woon am kenn ku ma nettali gént gum géntoon ci Balla Gaye xam naa nag mbir moomu mbiram la ndax yitteel na ko lool mu ne dafa gént jamono yooyu Balla Gaye di sangoo saafara mu sangoo saafara ba génn duggaat sangoo saafara ma ko a ah, sa ngént gi day bu fekkee dëggu na Balla ngay jekk na Modou Lo te na naa ko daan yàlla def noonu la noonu la deme kon ngént sango saafara aajo ju faju la saasa saafara stawat la jaaxle guy dañ la assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala